ay fay Germaine Anastasie di nuyu mbokk yi ñuy teewul ay ci bokk na ci e, wàcc wàññi dund gi rawatina mburu bi nga xam ne yóbbu nañ ko ci e, cent cinquante francs mu mel ni rek ñuy defar e, li di farine naka noonu boutiquier yi ànduñu ci ndogal bu ni mel te njiitu maanaam gouvernement bi daal di koy jël ñoom nag dañu xëy daal di banque seen yoxo fas yéene nag bañ a defar li di farine bi niki tey jaaykat politique yi nekk ci koñi itam ànduñu benn yoon euh, ci wàññi gi ñu wàññi njëgu euh, mburu mi tey ji ca pencum ndaw réew ma ñu fas yéene amal nag ab ndaje moo xam ne dafay euh, dajale ñi nga xam ne ñoo jiite groupe parlementaire yi ñu muy bu bu njëkk boo xam ne ba ñu sampee gouvernement bu yees ba léegi ñu ngi koy soog a amal la ñu fas yéene waxtaane nag bokk na ci calendrier seen wàllu euh, liggéey ci euh, li nga xam ne moom lañu dëgmal ci ay wàllu euh, audience bokk na itam ci la ñuy waxtaane wàllu tàggat yaram ginnaaw nag ba ko seeni soxna defee góoru ville de Dakar yi ñoom it daal dinañuy jël raaya bi nga xam ne moom lañu ñu duppee coupe Saint-Michel ni ki démb ca stadium Marius Ndiaye ay dans ay basketteurs euh, ville de Dakar nag ñoom ñoo am ndam ci kaw Guédiawaye basket club ci 69 à 62 muy euh, lu am solo ci seen saison bi nga xam ne ñu ngi ko fas yéene ndar képp ak raay bi nga xam ne moom mooy coupe Saint-Michel mbokk yi yile ponk moom moo nar a gën a fës yaatal gi léegi léegi lay doon su bàkk bi jibee ba noppi. dal leen ak jàmm yi dañuy door xibaar yi wax eh, ci njëgu dund bi nga xamante ne daal nañ koy wàññi daanaka tey ji la way jëfandikoo yi war a yëg ndax wàññi nañ ko am déet naka noonu conseil bi doxal mel ci ñaar fukki fan ak benn eh, ci weeru juin wàññi woon njëgu saaku fariñ bi wàññi ko mu tolloon ci eh, ñeenti junni yu manqué téeméer ak juróom-ñetti fukk daal koy yóbbu ba ci ñetti junni yu teg ñeent fukk mu mel ni daal ñi nga xamante ni ñooy defar farine bi ñoom. ak sax ciment bi ndax ñoom détail yoon ba tax na ni ki tey jii nee daal dañuy banque seen yoxo. banque seen yoxo su ko defee bañ a defar li nga xam ne moom mooy euh, farine bi la waral nag taxawaay bu ni mel mooy euh, wàññi gënu ko wàññi euh, te lay métti war a mën a. daanaka tegu seen ndodd loolu la ñu bëggul lañu bëgg nag mooy mag bi daal di xoolaat li nga xam ne moom mooy euh, euh, ndogal bi muy jël ñeen nag wàllu dund gi nga xam ne doonu ko bëgg a wàññi. dinañ ci ñëwaat nu mu gën a yaatoo ci suñu yeneen jotaayu xibaar kuréel bi ëmb boutique yi jaay détail fii ci senegal ñoom nag fas yéene ñu benn yoon wàccoo ak loolu li nga xamante ni kilifa yi daal nañu koy euh, digle muy rek euh, wàññite bu jëm ci njëgu dund gi. moo dàq ci euh, ndaje mu mel ni boobule taxawaay moom la boutique yi fas yéene am ci li nga xam ne moom mooy dox ndax ñoom la ñu gëm mooy état décision bi nga xam ne jël na ko dafa méngoowul dara ak li nga xam ne moom la. waroon a def maanaam tàmbalewul fi nga xam ne foofu la war a tàmbalee. nguurub Sénégal ak jaaykati boutique yi bokkuñu gis-gis ci wàññi gi ñu yégle ne dinañu ko amal ci duutiir bi suukar bu mokk bi ceebu mbay mi farine de bi mburu bi. ak sax simon bi ndax ñoom détaillant yooyu ne mënaguñoo tënku ci mesure yi gouvernement bi jël loolee nag neexul benn yoon ci jiite boutiquier détaillant ci Sénégal wërngal këpp. ñëpp ñu demoon ci concertation yi gis nañu ñett am na wax yu fa souligné benn boo xoolee ki jiite CSS moom bi ñu ko laajee dafa ne suukar bi normalement la war a jar kon kooku waxtaan bi ñu war a waxtaan ak moom dafa des muñee yi bi ñu leen laajee dañoo wax ne ñoom dañoo soxla woon ñu subventionné leen te ñoom nee nañu 4000 leen di subventionné kon nag foofu waxtaan dafa des donc nag ñun moom ala xaal ñun dañuy toog di xaar rek. moo ne day boobu la wàññite niki tey ji altine yem ak fukki fan ak ñeent ci bii ñu ne la ko waroon jëmmal waaye njiitu ABDS bi jàpp na ne nguur gi dafa yàkkam ci lool bu doonul naxaat yi mooy engagement loo xamante ne attanoo ko mooy mooy man man mii ma engage essence yi nag tafaatin dañoo digg askan wi loo xamante ne nañ koo def waaye fi ñu bëgg jaar foofu du bunt bi lu ñeel huile raffinée bi bouteille bi mu ngi jar ñaar téeméer riz bi jamono ji détail bi juróom benn fukk ak ñaar dërëm lañu koy jaayee kilo bi lu ñeel suukar bu mokk bi kilo bi mu ngi ci téeméer ak ñaar fukk te mu ngi doon jaar téeméer ak fanweer njëgu mburu bi wàññi nañu ko jëlee ko ci fanweer ak juróom yóbbu ko ci fanweer muy wàññi te juróomi dërëm saako ciment bi nag jamono ji mu ngi ci juróom-ñett téeméer ak fukki dërëm bu fekkee ne nag aju jëfandikukat yi lu ni mel yombalal na leen ñi nga xam ne ñoo yëngu ci wàll wi ñoom lu ni mel ëlëm na leen ba tey ci ay xibaar ñu wax ci mbas mi nga xamante ne bu ñu fàggandikul dina gën a am dayo fii ci Sénégal kiy jiita aéroport Blaise Diagne bu Diass di ci ñaax askan wi. Cheikh Bamba Dièye nag dafay sakku rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo bàyyeekoo Makka ñëpp si aj ba noppi euh, ñu jorte ne ñu ci bëri ci ñoom dañu indaale lii di euh, Covid 19 mu sakku nag ngir ñu gën a ànd ak prudence. taxawaayu ministre bi tey jii weesu lu dul rek. fegu moo gën faju wax nit ñi li xew ci àddina yee leen pour que ñoom tamit ñu jël disposition yoo xamee ne ànd seeg état bi pour que mu bañ a am ngaañ ndax comme ni ma ko waxee Covid mos ta joge ci biir réew mi mais comme daje gu rëy la ñuy jóge boo xamee ne ay millions ngi doomu aadama fa daje foog ñu waaj ko préparer ko loolu moo indi dispositif bi yëpp ñuy ñaan ojaat yi bu ñu ñibbee seen kër ñu bañ a fàtte ni bërëbu jàngoro lañ jógee te waaj lépp loo xamee ne dina leen musal ba ñu bañ ko yaatal su fekkente ni yëg nañu lenn xeetu tàngoor wala ay saxat ak yu demee noonu ci seen bopp boo ko defee ñu jege structure de santé yi mais lii moom ñun ñu nekk ci aéroport bi ñu ngi ciy sant yàlla bu baax ndax ministère de la santé avant que mbir yi di tàmbali ñu ngi woon ak ñun bi mu nekkee ci biir ñu nekk ak ñun ci fin bi tey jii ministre bi ci boppam moo ñëw pour taxaw xool matuwaay yi fu ñu taxaw dispositif bi et je pense que ni jàpp na ni ay équipe am nekk nañ ci ànd ak ñi nekk acteur ci biir plateforme bi pour ñu taxaw ujaaj ji naka mu gën a rafetee ñu dem ca pencum ndaw réew ma foofee nga xamante ni ñuy jiite groupe parlementaire yi ni ki tey lañ leen woo ci ab réunion lañ fa war a waxtaanee mooy naka la ñuy def ba tëral liggéey bi leen di xaar. boobule euh, réunion nag euh, mu ngi am ci jamono joo nga xam ne déposé nañu ci tableau euh, njiitu assemblée nationale di Amadou maam Diop ab document boo xam ne dafa ñeel programmation budgétaire ak économique pluriannuelle boo xam ne dina la ko dalee deux mille vingt cinq jàpp deux mille vingt sept la. foofee la ñuy des ci pencum ndaw réew ma boobaay léegi ñu ngi fay xaar jëwriñ gu njëkk gi di Ousmane Sonko ndax moom nag war naa doxal li di politique générale am mu mel ni nag la ko àppaloon daal na koy weesu. weesu na ko ndax bu ñu ko jëlee ci wàllu euh, li nga xam ne moom mooy euh, assemblée nationale foofee nag ñi far ak moom daanaka dañoo euh, néew suñu jëlee ci lim bi nga xam ne ay ndawam am nañ ko fa waaye ci wàllu juridique daanaka ba léegi mën na nekk waaye bu fekkee fekkee nag ci wàllu politique la am na loo xam ne dépassé na ko ndax ba mu waree déposé lii di euh, demande bi euh, app ba daal di nay euh, weesu mu nekk situation boo xam ne jort nañu ne dafay indi gàllankoor ci wàllu politique leeral yi ñu indi ci Pape Malick daanaka léegi mu mat ñetti weer boobu ba léegi bu ñu tabee Ousmane Sonko premier ministre amagul benn demande ngir def déclaration politique générale déclaration politique générale boo xamante ni premier ministre yàgg na ko def laaj bi nag moom mooy lan moo tax léegi ñu dugg ci ñetti weer Ousmane Sonko waxagul wala defagul li nga xamante ni moo di li mu fa yéene def jàkkaarloog député yi explication yi nag ñaar la benn bi droit lal ko beneen bi di politique bu njëkk bi moom moo di article 98 ci loi wu 2002 tënk règlement intérieur assemblée nationale eh, lii la wax déclaration politique générale premier ministre war ko def mu ngi dugg ci ñetti weer bu ñu tegee gouvernement assemblée nationale ñu war ko informer juróom-ñetti fànn wante loolu am nay jafe-jafe ndax taatum dindi gi fi dindi woon poste premier ministre bi ñu koy delloowaat disposition boobu nekk ci règlement intérieur bi kenn dugalu ko woon loolu ñu yokk di président de la république wala sax premier ministre Ousmane Sonko article 85 tënk ko te saa yu ko neexee lay doon. beneen explication bi lalu ci wàllu politique assemblée national jamono ji nekk ci kujje gi ñoo fa ëpp beneen laaj ndax Ousmane Sonko dafa bëgg am temps bàyyi ba ñu di sutur assemblée nationale bu septembre 2024 weesoo mu mën a majorité bu koy liggéeyal député opposition bi li la wax ñetti weer yi moom kenn mënatu ko respecté gisuma tamit lu tax ñu koy respecté su fekkee premier ministre deful dara ñun dañuy déposer recours fële ci conseil constitutionnel Ousmane Sonko war a janoog député yi janoog tamit coow yi nga xamante ni moo ko wër 30 juin bu weesoo dañuy dugg ci beneen session ci biir assemblée nationale beneen beneen session bu nga xamante ni day ubbi yeneen bunt lu ci mel ni motion de censure te bu boobaa gouvernement bi mën na daal des ba tey ci wàllu politique wax ci waa FDS les Guelwaar ñi nga xamante ne ñoo jiite euh, boobu les parti nekk ci gox yeeg goxaat yi taje woon nañ ca Thiès ci euh, ñaar fukki fan ak ñaar jàpp ñaar fukki fan ak ñett ci weeru juin ba ñu ca noppee nag jël nañu dogal tas bépp banqaas bu bootu ci euh, boobu les parti dogal bu ni mel nag nga xam ne ñu ngi ko jël lu ñu ci jublu mooy fexe rek ba tëggaat partie bi mu gën a méngoo ak jamono waaye itam fexe bëggoon ko ñoŋal docteur Babacar Diop la ñuy teewlu ci ay taat taataanukaayu Binta Traoré. ñi nga xamante ni ñoo jiitee parti FDS les Guelwaar ci département yi Sénégal yépp ñi nga xamante ni ñoo jiite parti bi au niveau national direction parti bi ñi nga xamante ni ay ndaw lañ nekk ci parti bi nekk ay jigéen nekk ci parti ginnaaw bi nga xamante ni càmbar nañ élection yi ñu génn ak doxalinu parti bi ci at yii ñu génn ak recommandation yi nga xamante ni jëlee nañ ko ci congrès parti bi te situation politique bi ñu woon ñu doxal recommandation parti bi ah jël nañ ci recommandation parti bi ci doole bu ñu congrès bi joxoon bi ñu génn ngir ñu tas li nga xamante ni mooy instance su parti bi yépp directoire mooy mouvement des jeunes muy mouvement de femmes yi nga xamante ni ñoo ŋànkoon parti bi ñu tàbbi ci xibaar yi ñeela tàggat yaram ASC ville de Dakar ñoom nag daal nañuy jël coupe Saint-Michel démb lañ doon jongante ci stade Marius Ndiaye ak waa Guédiawaye match bu tàngoon la ci diggante ñaar ñi daanaka euh, ca ndorteel la ba ñu koy euh, ndar képpee ca noonu nag ville de Dakar daal di euh, jël ndam li donte sax ci mi bi bi Guédiawaye basket club moom moo ko ma ne woon par a à vingt neuf ca ba ñu demee ba nag ba ndar képp ko ci la ville de Dakar daal di gagné ñu dellu soit ci boobu boobule match ak Grégoire Sambangor. final la xumbaare la stadium Marius Ndiaye gis na lu ni mel ak ndajali dox diggante AS Ville de Dakar ak Guédiawaye Basket Academy ci finalu Coupe Saint-Michel. public bu tàng jër spectacle bu métti ca parquet ba. ASVD dajale na lépp ngir am ndam. on a bien joué nag wax dëgg yàlla match bi métti woon na Guédiawaye yàgg nañu sonal mais comme ni ma ko waxee ci conférence de presse bi rek. match bu ci nekk ak contexte contexte bi le sax xeex bu métti la bëggoon ci terrain bi manche bu njëkk ñu daal di ko gagné fësal ci rek expérience bu am solo. Euh, expérience parce que mosu ñoo am coupe certes mais ren gi dañoo wuti ay joueurs yoo xamante dañoo am expérience ci mbir mi donc par rapport ak GBA bi nga xamante ne ngi soog a yëg yaakaar naa ne expérience rek nañu mënoon a gagné. donte nañ GBA di rek rafet lu match ba mu def tamit xëcc ci jàngat. waaw ñoom jëm nañu waaye tamit euh, jëm nañu joué bu baax a baax waaye nag coupe bi nag moom dafa daal di yaa tànn ci fan la jëm. ñu nag daañu wéyal ngir mbën di jàng ndax gis te ne am nañu ay ndaw yu xarañ yoo xam ne ñoom ñëpp xamuñu naam sax la haut niveau waaye tamit euh, daanu dikkaat ak ci doole. de si waat ak doole loole rek lañu ñu gis. waaye la loolu gis nañ ASVD mu yëkki rek raaya ba dal di ko féete ji ñoom ñi di xaar championnat bi ci fàttali final bi rek amal nañu ko ci teewaayu kilifa yu mag yi nga xam ne ñëwoon nañ rek fësal seen ak njàppale ci basketball. ci juróom benn fukki bal ak ñeent ci juróom ñaar fukki bal ak ñaar mais di nag ci boobu les match am na seen benn joueur boo xamante ni daal na ci ràññee ko bu baax. Saliou Guèye lay wuyoo xa wane wane xarañteem bu baax a baax ci match bi ginnaaw ba mu ci génnee nekk ki gën a dugal ndax fukk ak ñeenti poñ yi mu dugal naka noonu ñu tabb ko itam mu doon joueur bi gën a ràññeeku ci final bi. boo gisee loolu yëpp nag collectif la parce mën naa ne équipe bi yëpp la du man kese maa gagné parce ñoom bu ci jàppul woon du demee nii mën naa ne équipe la donc ñun lenn rek la ñu mën a def mooy ñëw jàppalante góor jàpp si góor après ñu déterminer match bu jeex benn yoon. boo gisee lii lii du dara lii lancement la rek parce que dañ ciy jàng parce que c'est la première fois bi Dakar jël ko donc dese na ko ay yeneen coupe objectif bi du coupe Saint-Michel du coupe maire du coupe Sénégal objectif bi championnat la te dañ ciy focus incha allah. ñu wax euh, ci euh, euro 2024 ak euh, Nicolas Fulkrug mi nga xamante ni daal nay may place bu njëkk ci groupe A bu national Mannschaft mu mel ni nag moom nga xamante ne pensionnaire bu Borussia Dortmund la daal dinay nag gën a fës ci euh, temps additionnel bi. Euh, mu mel ni rek euh, conférence bi Suisse dafa dal di jàll ci ñaareelu place bi beneen daje boo xam ne itam ci groupe bi la Hongrie moom moo jël ndam ci kaw Écosse ñi nga xam ne nag ñoom ñooy ay ñooñu Sobos. Tesla yi ñoom ñoo dal di euh, dal di am nag euh, daanaka temps additionnel ñu daal di euh, dugal bu am nag tabbi ci meilleur troisième boo xam ne moom moo nekk ci groupe bi programme bi nag dina woy tey ab match fas yéene dox ci diggante Espagne ak Albanie naka noonu Croatie Italie mu nekk ay duel yoo xam ne euh, si ñaareeli euh, place groupe B bi la ci la ñuy wut jamono ji. mooy ba tey ci wàllum tàggat yaram wax ci Copa América mel ni nag États-Unis ñoo daal di dóor waa Bolivie Christian. politique moom nag ak ñoñam ñoo leen daal di dóor ñaari bal ci dara. ci beneen match itam Uruguay dal dinay eh, am ndam ci kaw Panama ñetti bal ci eh, benn. Euh, euh, mu duggee nag euh, entrée en liste tey ci ngoon groupe D bi moom mooy dugg à 22h Colombie moom moo fas yéene laale ak Paraguay di bu ñu ci noppee nag Brésil bu Vinicius fa yéene ak Costa Rica. ñu egsi ci pàcc ko mujj ci xibaar yi ñoo jagleel ko li yéen kay xëyee tey dale ak jàmm yéen kaay ba di naaj wa ñi nga kat ñooy jaay fariñ bii ne ñoom kat dootuñ ko jaay ba tax bu sukkandikoo ci réew mi quotidien nee na ñi nga xam ñooy mëñeey kat mooy ab arrêt ci li xam ne mooy mbirum fariñ bii Walf quotidien nee na kat bu deful nànk rek bés yoo xam ne ca lu ñu jëm fa am mburu kat yéen kaay bi nee na mëñeey nee na daal appliqué kat mooy wàññi njëg lii loolu yàlla dafa mel kat loi boo xam ne dafa mel ni kat diggante nguur gi ak li xam mooy mëñee yi sagara ngay xëy ñoom kat ñoom ña daal di yaa ah, défier nga xam mooy nguur gi ne daal di nga xam kat mooy njaay boo xam dañ ko ami perte bu yoboo kat ñu dem tëri ba tey les éco nee daal li nga xam kat moom lañ indi saafara mooy waxtaan waxtaan boo xam ne day tax kat ñu daal di mën a fexe ba askan wi ku ci nekk gi sa bopp ndax lu ko mooy daal mbir mi kat dana gën a jur coow waaye ku ci nekk daal samp fa nga samp loole du dox l'observateur nee na ak lu mënti xew daal jamono ji état bi ci boppam daal moom am na lu ko doy sëkk la ko doy daal mooy ñaam wàññi na yi nga xam ne kat mooy njëgu leen ci ay lu ñu dundee waaye dafa mel ni mëñee ñoom nee mukk fa ñu taxaw daal la ñu taxaw bis yoo xam ne kat ci lañ jëm kenn du fa jaay mburu dafa ni kat li nga xam mooy nouvelle bu naqari dafa mel ni day day daf toftalu ba tey ci l'observateur ñi ngi wax ci affaire waa alerte covid maanaam mbas mi amoon ne daal dafa mel ni kat ñaar da nga xam ñoo aji ci seen i débës ba laas ne ko dëgg ndax dafa mel kat Covid 19 daal daal détecté ñi nga xam ne kat ñooy juróom-benn fukk ci ay cas ay pèlerin yoo ñoom ñi ngi ci roppalaan ba tey am nañu ko Jean Charles Sagna di médecin chef service bi nga xam ne moo ñor wàllum contrôle sanitaire ne dëgg waaye moom kat ma def le point jëriñ dénk wàllu dëmbeeg dikk bi rawatina ci jaww ji moom kat ma ngay dala xelu askan wi leen loo xam ne nañ ci ci wàllum politique Sud Quotidien mi ngi dikkaat ci waxtaan bi nga xam ne dox nañ diggante Diomaye ak Macron ne daal rupture en marche noonu la ko yéene kaay bi dikkee Jean Charles Biagui ak Bakary Domingo maane ñoom daal ñi ngi xool euh, li nga xam kat mooy posture bi ci wàllum rupture ak ci ancien modèle rupture dëgg moom moo am ci bis bi jour ci diggante Amadou nekk leader wala sax li nga xam ne mooy wàllum leadership ci moom moo ko daal di la

na première cargaison bi gis ne ci production annuelle daal dana toll ci onze millions de ci pétrole brut bu xam ne ñu ko xaar ci atum waaye itam volume bi nga xam ne ci la ñu xaar muy toll rek ñeenti millions suñuy koppar ginnaaw pétrole bi jonge waaye la daal di sabab mooy Aqua Power mi nga xam ne moo nar a jël pëf jël ba tax na lu tolloog rek 466 milliards Aqua Power ginnaaw bi nga xam ne ndox mi ma ngi koy jaay waa Sénégal moom ñeen fukki milliards ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci fanweeri at yoo xam ni concession bi jaal moo ko yor ba tey ci wàllum tàggat yaram stade quotidien dukaat nañ ci Copa America Brésil bu Vinicius moom lay xaar tey ci guddi ci euro bi nag diggante Croatie Italie choc bu nar la jaa ngeen jëf di ko jaajëfal moom Mar Cissé di leen jaajëfal yéen bu baax a baax ci seen teewlu ak seen kóolute dinañ ñëw ak ci les jotaayu xibaar Kajoor Cissé ñu am mbekk doon ci fekk mbégte bu ma partagé ak yow la Germaine ñu jaajëfal bu baax a baax mbokk yi ñu doon teewlu. xibaar yi ci kanam lañuy dellu si waat bu juróom-ñaari waxtu jotee ci kàllaamay wolof way leen di ñu seetaan.